Covid bi empêché na sénégalais yenn activité yi dox président jël ay responsabilités am ne day jël citoyens yi jël population bi jappalé leen aider leen appuyer leen loolu président mu ngi koy def ñep tek ci seen peut muy gel di walu médica di walu médicament du walu hygiène ak yeneen ak yeneen ay gel ak eau de javel lépp président jël ko jënd ay masque jox ko nit ñi pour ñu séddale ko pour mëna a ak jàngoro ji. je pense que tey suñu tollee fofu actualité moy mooy ak jàngoro ji d'abord te moment bi ñu toll on se dit la vérité du réum politique réewum maladie la réewum jàngoro la jàngoro ñun def ba pour mu jóge fi comme ni ko coordonnatrice waxee parce que nag jàngoro ji fi jógul activité yi du dem te président yéenam yëpp mooy jàngoro ji jóge fi école yu ubbi jumaa yu ubbi hôpital yu ubbi marché yu ubbi nit ñi dox seen activité mais tey suñu gisee benn Sonko bi nga xam ne programme bu ko def ay campagne déguisée mais dañ naan ko Sonko plateforme ñoo nangu ne leen arrêtel arrêtel ce campagne déguisée yi ngay def arrêter ce acharnement le président de la république le président de la république en train de développer le Sénégal le président de en train de soutenir les sénégalais sur la situation bi nga xam Covid 19. nous ñëpp danse à la samba On def un pas en arrière opposition on un pas en arrière te ñu nekk vraiment nous ñu on un pas en arrière un pas en un pas en avant le président mis un pas en avant pour faire ak

dalul PDS dalul APR dalul Sonko c'est sénégalais en miniature Ben, ñun sénégalais ñi nga xam conscience te ñu ñoo vraiment dañu war accompagner le président de la République parce que nag il est le chef suprême ah. ku ndànk da nga war ak il faut ñu xam ne état lañ yor état bu ñu yor day organiser wu pour ñu bu école yi ñoom ñu ngi ciy organiser am ay experts am ay ay scientifique yi nga xam ñu ngi toog xool na la ñuy organiser wàllu examen ba ñu seen parce que l'éducation c'est la base tey école mënul ñàkk si réew njàng mënul ñàkk si réew bon suñu toogee fi tey président jël ay responsable dem xam ne xale yi dañu war a def examen war a am ay lija lijaasa pour am xam-xam pour mun a jiite réew wala mun a jiite ay société tey suñ si tollee dañu war a bàyyi ànd ak président xool ku ne moyen boo indi ak loo mun a def pour ñu mun a vraiment ubbi école yi ngir xale yi mun a dem continuer seen njàng